di wax ni kàddu yi noonu la tëdde nañ ko jàppee noonu noonu la tëddee ñii ñoo fi war a yëkkati kàddu kon sëriñ Sam mi nga xam ne moo yor kàddu sëñ bi bu am di jàll ngay kii dina wax ci daayira yi ak taxawaay yi ñu ci am moo xam yi ne biir réew mi moo xam yi nekk bitim réew ak fu ñu mën a nekk rek sëriñ bi euh, sëñ saam dina leen sant gërëm leen ci turu sëriñ bi ak yeneen kàddu yi soññeek sant yu ko sëriñ bi yónni ci mbooloo mi su sëriñ Sam tegee kàddu. sëriñ Cheikh Faty mi nga xam ni nag moom la sëriñ bi teg suñ kanam moom it mooy xool lu des ci wax ji mu mottali ko waaye daal bis gënewul morom ja lu dul la ca xew ca bis bii bis yoonu murid bépp la waaye dañ ñu ko féetale ñun Daaru Xuddoos asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen nuyu di ser bu tedd ak mag ak nuyu bu sel bu mag bu nu jëlee ci sunu buntu Serigne Touba muy Cheikh Ridial sek gem Bamba khalifatu mam Cheikh Ridial muy ay cadeau nuyu nuyoo yenn yi di ay cadeau yi tiant yi ci dess nekk ay cadeau yi soññee cadeau nuyu yi ak tiant yi nak mi ngi ci jiital ñam Serigne Cheikh Fatim mi tay nga xamne ne la ma bolel bi nga xamee ne ma nga fee ci ndigal la ko sëñ Moussa Mohamed jox te sëñ Moussa fet fetlaat ko léegi suñ kanam boobaak léegi sëñ Cheikh Fatum takku ànd ak sët yi ak rakk yi ak doom yi ak talib yi ba waxtu wu nekk ñuy dégg ak cantuk Cheikh àll jàlgam bamb fa mu nekk waaye cantuk ñi ni liggéeyal mu doon lu am solo ca lu ci ëpp doole nag mën naa wax ne 95 pour cent yi taxawaayam la ndax jëwriñ moom ku ne xam na ne saa yu jiitoo rek nu mu noonu la ñëpp yi doxe kon sëñ Rijaal mi koy sant bu baax ci taxawaayam ak pas-pasam ndax ba fi jógee ba léegi kat talut këram talut njabootam talut lenn na liggéey bi jag rek ëpp sax lii tax du ngeen koy faral di gis xëy na doyloo jëwriñ yi mu jiital rek ci liggéey bi waaye lépp moo koy coordonné loolu it dafa laaj mbooloo mi xam ko <laughs> daanaka dafa gën a préféré noppi ak liggéey maam dafa yàlla daal yàlla ni ma ko mën a wax ngeen dégg ko maanaam dafa gën a préféré noppi daal te jëf comme la si ngir jàll gëm Bamba santaane woon da nga ne yokk jëf ji wàññi wax ji ci loolu la nekk dina ci soññ ñun ñëppit nag loolu moo tax du ngeen ko dégg ci lenn waaye lu ngeen diis mu dox wala ngeen dégg ko mu dox jëmmam la kon sëñ Rijaal mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant ay rakam sëñ Cheikh Amdi Rijaal mi nga xam ne moom la dénk communication ak organisation te ngeen xam ne ñaar yooyu daanaka mooy liggéey bi communication ak organisation waxtu wu nekk tamit réunion yëpp mu di ko tenir te lu mu nu confirmer ci réunion bu programme bi jàllee mu réussir ko moo xam communication la moo xam organisation moom it kon ñu ngi koy sant bu baax liggéeyam rafet na sëñ Yiri Jàll mi ngi koy sant bu baax di sant rakkam yëpp di sant bu baax euh, sëñ am di xel koom xalifa euh, sëñ euh, Cheikh Fental Sekre Jàll waaye sëñ Amdi Rama xalifa sa Cheikh Diop Mourou Massamba di sant euh, mbooleem jëwriñ yi nga xam ne nii ñu ngank kër gi ci doxeen wi bu nu ci cité ñi àndoon ak maam la maanaam di saabara jàll yi mën nañ caa tudd njabootuk maam Mbacke Seck njabootu njabootuk Cheikh Moussa Seck njabootuk maam Dame Seck njabootuk maam Dine Seck njabootuk Baye daal Sey ak Baye Cheikh Sey dégg ngeen rijaal Sey léegi ak kër gi yëpp daal ñi nga xam ne ñoo doon saabari rijaal yi te seenu njaboot ñi kër gi wax nañ ko léegi Baye Jaaja bay Baye Donga ñoom ñoom ñi ngi jóge gerle ñëw di ay magi murit waaye sëñ Mor Gay ñoom ñii jóge ndogal Baye ñoom ñoom ñëpp wax dëgg yàlla di ay ndogal ndogal dagg seen lépp te ci ngeen xam ndogal ni mu demee ci kër gi ñi ngi leen di sant leen gërëm bu baax a baax di sant bu baax di gërëm sunuy bàjjan soxna Kana sek, soxna bint sek Rijal waye soxna xali sek waye sunu wajuru bop yi nga xamne nak lu sëñ Rijal musa sumbu, dun wax ne ñono jur wala ñono mak, muy soxna Ami sek me ak soxna Bintu ñi ngi fi waye dañuy maaseeg ñun ci pas pass ndax pas-pas du magal di sant bu baax soxna Bintu cheikh mi nga xamne mom ak ci njabotu seigne cheikh Fatim waye soxna sek di sant soxna Bintu Amdi ak seeni rak sun len tuddee rek manam day melni tud nañ ñep ndax it nak di buñ leen tudde rek tud day melni tud nañ ñep ndax itam danoo neexuta lim nag ndax danoo bari kon ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant seen taxaway waye itam nak bu tudde tuddee Cheikh andir Diall mi tudd ay rakam ku melni ni Cheikh Magay ku melni ni Moussa ku melni Baye Ousmane ku melni ni Cheikh Anta manam danaka nak wax deug yalla sama duggé ci lim fi la ñuy yenn kon da ñom ñepp daal sant nañ leen gërëm nañ leen ñaanal nañ leen ndax lu nekk ñok ñom ñoo cey bokku nekk ngeen gis leen ak ngeen bañ leen gis waye sunu doom bop yi nak di ay jàmbaar di borom pas-pas wa kër Cheikh Fatim bu ñu tuddé Cheikh dial mais ak rakam yépp gis nañ seen taxaway wa ka Cheikh dial gam Bamba bu ñu tuddé ci am di Seck dial mi mu yobale rakam yépp ta ngeen gis pas-pas engagement yi ñu am ci liggéey bi ah néewunu sunu néewunu su ma doon gone newunu su ma doon ab seex néewnu su ma doon leen danoo fëtti ko rek gis fi seen bàyyi jaar ñu teg fa seen tànk ñoom kon liggéey bu bu sontoo rafete ni itam ñoom it nag duñ mën a ñàkk ñu beral leen ci ak cant waaye nag di sant bu baax mboolem dawaayir yi yi ne ci biir réew mi ak bitim réew yi ne ci biir réew mi ak bitim ndax xam ngeen ne yombut liggéey bi yombut waxtu wu nekk liggéey bu ñëw bu nekk fédération bi nga xam ne moom la Seydi Diallo Gëm Bamba formé bàyyi góor xuma jiite ko ànd kook rek ak Cheikh ak seex Moussa maanaam ànd ak lenn ci sunu njaboot ci liggéey bi saa yu ndigal ñëwee su ma ko sëñir jàll waxee ñoom laa koy wax ñu woo réunion lu sëñir jàll tënk ne na ko kenn ku nekk def danañ gis ne nit ñi danañ ko def ba def lu kawee suñu jot bu ne góor nangam jigéen nangam jigéen ñi doon ne su ma doon góor la góor ñi du ne su ma doon jigéen la ku ci nekk da nga sàmmoonteeg la sëñ ba wax ba fexe ba la sëñ ba nga def ko ngi leen di sant di leen gërëm ci turu nag Baye Gora Khouma mi nga xam ne moo jiite mboolem fédération yépp nag moo xam biir réew mi la wala bitim réew su ma ko waxee rek tënk naa noonu di sant itam nag mënunoo ñàkk beral cant Baye Fall xidma yi ak Yaay Fall xidma yi ndax ndekki yi ñu yóbbu woon léegi xam ngeen ne Sëriñ Jàll da leen ko sase ca ndekki li nag mooy lépp ndax ndekki li suñu si am dara Jàll wax na ko léegi mooy leetar ba Sëriñ Tuubaa bi ñu doon maam Seex Jàll kon ku nga diko def ci reñ jit ñu yok ko yokkin wu yéggi dayo wax ko señ bi legi bin ko siar jene na ko yok bi nga diglé won def nañ ko saba ci ndekki kon nak bàyyi far xit may ak yaay far xit may ci njitul señ Cheikh Boussa Fall ak ñi nga andal yeen tamit nak dañ leen beral ak gërem leen bu baaxa baaxa baax ndax itam nak nit bu defé waaw goor da ko daan waaw goor and taxawu keur Cheikh Ridial ci njital Mor Jigal ñoomit dañ leen beral ak ndax initiative la bo xamne waa kër suñu cee Fatick ñi ngi ci waa kër sëñ Rijal waa kër suñu cee Jóob waa kër ñëpp a ngi ci ànd taxaw kës suñu Rijal la rek ku suñu ñor yaa ngi ci biir Mor Jigal Rijal jiite ko mi ngi doog a sosu waaye bu am doole la daanaka bu nga gisee lii xew lépp daanaka ci loolu la sosoo ba suñu Rijal gëm Bàmba yónnee ma wax ma ne daa amoon daaw lu ko naqari woon lool ci programme bi mooy kin fi rayoon day jar ñu leeral bu ngeen gisee maanaam mbir mu daaw am am dañuy leeral la waral mu am dafa am kon fi rey daaw ba magal gi jàllee ca mbedd mële ña ko rey laa léewunoo njabootu suñu rijaal taqewunoo njabootu suñu rijaal waaye ban doon ban dawee ñëw daanu ci ëttu suñu rijaal Dakar Actu bind na suñu rijaal waa këram dañ doon xeex ba jamante suñu rijaal ne ma demal démentir ma dem RFM woo fa télé yëpp woo waa Dakar Actu ga ba ko ga ko bindoon ne leen li ngeen bind da ngeen a juum say rijaal waa këram xeexunu say rijaal waa këram talunu woon sax xuloo bay xeex ndax ku ca bokk bu màggal gi jotee da nga tal leneen lu dem di jàmm leeral fa la ma fa leeral yaakaar naa ñëpp gisandew ngeen ko moo tax daaw la ma waxoon ne buñ ca àggaatee na ngeen ci jël ak seeni matukaay daal ren jii nag mu woonu feddaliwaat ko nenu samp yooyee ku ca bokk boo dee sama dongaana ñaanalant boo dee sama taalubee bàyyi ma ndax bëgguma ko ndax am pola folklore la te liggéey bi ma sëñ ñëri jàll dénk folo folklore bokku ci foo bokku ci te képp kuy sàkku sama ngërëm wala nga nga may nga may liggéeyal war ngaa sàkk lu ma neex waaye doo xool li ma bëgg nga di ko jëndee folklore akum po maam di ca dëgër bopp wala nga ciy féeteerlu su boobaa jaay leen ko seen bakkan su boobaa na nga dem police na nga dem gendarmerie na nga dem tribunal wax ko kilifay dëkk bi na leen jaral lu ne ba ba bakkan moom bu mu waddali ci liggéey bi sëñ jàll wala ñu ñuy tudd dinu ci tudd loolee moo waral bi ñu demee ci sante commandant Diallo ma nag sëñ Cheikh muy ñu di ko sant bu baax nag Seck monsieur Seck nanga nu santal commandant Diallo bu baax yéen tamit ñu ngi leen di sant ba ñaari fan d'avant rek la mu jox nu rendez-vous pencum Daaru Xudoos ba ma agsi ak sama oto dana ma doo leen fi bàyyi di si ma lay libéré doo leen fi bàyyi démb laa leen indi ci 11h démb ba léegi ñu ngi fi li leen war lépp ñu di ko def ñu del mu del mo xatne dana la yebalal tay ji ay civil ngir li ngeen di bañ ñu di rond kep kuñ ci japp mo xam da nga yor pak wala da ngay def lanay bañ danañ woote danañ la jël ci ca la tëjee Touba njaaram leen day tëjee te su baba amul intervention lool nako ñepp ñëpp ta balan balan balan ñu lay japp taxaw ko ngir dal formé nan ko boo bo xamne man na téeméeri nit ñoo ñoo lay njëkk japp bacc baccal la ba paré dog la jox police ñu dog la yob li ni dañ ci bañul dara kon nag loolu na ko ñëpp maase xame noonu fu waaye jëm yóbbaale ko noonu ren bëggunu ay jël lu dul sikkar turu yàlla jaamu yàlla li bis bi laaj ñu di ko def sëñ Rijaal nee na soxlawu ko ci bis bi ndax loolu la ko maam Rijaal sose woon kon nag ñu dikk ci bis bi dayoo bi mu am ak maanaa bi mu am ak ampleur bi mu am ci ñun ñi nga xam ne ñooy gàggantikoo ci maam Cheikh Rijaal ndax doy na sëkk nag ñu ne maam Cheikh Rijaal ñun mooy suñ jëwriñ moom la ñuy roy waaye luy taxawaayam ci bis bi mooy ni ko sëñ Tuubaa waxee léegi moom sëñ Tuubaa leetar ba ndax sëñ Tuubaa léppam da koo tànn waaye daa tànn sëñ Mor Sekre mu mujj koo liggéey bind ko leetar pour li taxawu ginnaaw mu bañ a jóge fenn furu ci aw ñaqam kon ñaqu sëñ Mor Sekre Dial lu lew la sëñ Tuubaa tànn ne donte li fekkoo ma fi fekk fi ku mel ni Mourou Moussa danga ma ko joxal àllara ba jëm ko indee ñu yóbbuwoon sëñ bi Touba dellu si wun sëñ Mourou Moussa ba mu ko toggee mbooleem ëtt yoonu Mourou yi fu ci ne Cheikh Moussa dugal na fa yóbbu na fa ndab dégg ngeen ko ba tàyyi ci waxtaan si am secret jàll kon jël fi maam di jàll daj képp yoonu murit ban demee nag ndeke ndeke yoo sëñ Touba ba mu bindee ne tan maam Cheikh Diall battale na Cheikh Moussa ne ko bis bii nga ma indee Touba su dellu see dajale ma ruuyu jaam yépp Touba seereloo ko sëñ sàmba at mi ko Cheikh Moussa di tàmbali daa wóolu sëñ sàmba bi mu dikkee mu ne ko ana sab leetar mu génne ko Cheikh Moussa génne leetaram mu ne ko nag sëñ Touba moo waxoon ne kat bis bi ma ko indee Touba saa yu dellu seete ak bu mu mën a doon naa ko dajale rooyu jaami Touba lam lu leen lam leen di doyee nag xóomu ko ko yaakaar sëñ Touba nag sagru mu génnu ca loola waaye mu mel ni seytaane akub liggéeyam dugg ci lu mel noonu indi ca polémique di ca indi ay buxaar yu ay muslimaan comme ni ñu koy waxee rek jàngkat yi maam yàgg yàgg nañ fee gàllan ko yàq fi lu bari te sëñ Touba mu jaddit la woon boo ko seetee ci téere doo ko gis xam nga ne ku ton ni sëñ Mourou Sall li mu yoroon ci ab xam-xam li mu yoroon ci ak njub li mu ci ak jaamu yàlla bu taxawee ne sama bàyyi nee na ku koy dii nga xam nga ne yàqule mënta wees loolu bi loolu amee lii lii sëñ ci wax léegi li ma koy dëggal lool loolu la wax dañ lay indil dalil ne ku fi ñu jégal la bàyyi ma taa Jóob sëñ Mourou Moussa wóolu mu ñëw mu ne ko damaa am ay gan attaayal ma bàyyi ma taa taal baraada bi di attaaya ndeka gan ñi maam Ceerno la ak seigne Masamba Cheikh Moussa Sow ci rombu jang gi ñu tok ci priyan bi ba ma taal ñuy ba yag ma deg seen waxtan seigne Masamba nako ko Moussa mu ne ko Mbàkke mu ne ko bis bi la sabay batale te tax no ñew maag sa baay Ceerno sun ci jàppalee ba mel na nga bëgg loonuy war loolu neena Cheikh Moussa ne ko man de lima man ba warlu ko liggéeyal ci sëñ Tuubaa ba jubo ci ak sa borom ba mu wóor ma ne man la moy rogu bi ñu jéggal daa ko la ci res na nga xam ne mënuma ko ko man ca ko fanaan dana la defal kon bis bi kon yoonu man kon kenn xamul lu mu doon kon ku fanaan jégal ñun rek looloo doy ci ñun ñu di ko xëccoo ak giiroo waaye la Cheikh Moussa mënta fàggu ba sëñ dana ko ci bis bi lu mu doon xamunu ko kon lolo lu mat a bàyyi xel la maam Cheikh Ridiane nag tànku mbukkeem boobu mu ci amoon jural na ko pas-pas bu toll ne bis bii ñëw na ab taawam bu rafet teelu na dégg arab mën na sañse lool boole ca teeloon na am ak taalibe ay taalibe ndax baatin bu mu daan faral di feeñal muy suñ ci antalaaj bàyyi yërim saw mii def nañ toll àllarba ba toll àllarba bi àgg bàyyi yërim jóge ci garab gii suñ ci antalaaj di waxtaane jëm ca garab gële ba mu demee ba jub mbubbam moom wekkoon suñ ci antalaaj joor ko mu geesu ko mu ne ko yëlëbal mbubb mi doo koo sol mu yëlëb ko jànni put bàyyi yërim raam dikk na ko damay jébbalu mu ne ko déet ñu ñaan ñëpp suñu yàlla suñu sëriñ mu ne ko yow mi ne may jànni put yow laa jébbalu <laughs> xoola taaw bu mel noonu ko ko ñàkk xoola taw bu mel noonu ko ko ñàkk ci bis bii bàyyi daara seen ko nettal de nee na bi ñu ko waxee sëñ Rijaal dane nañ ko ub ko kenn laal ban dem màggali ba ñëw luñ ciy def ñu doog koo def bis bi nga xam ne nag jaral na maam Rijaal ab taawam wàcc carax jamono ji léegi ko doon gént sax da nga naan nangam waaye ab taawam wàcc mu ne moom buñ ko kenn laal ban dem ba ñëw kon bis boobu ban ampleur lañ ko war a jox ñun ñun ahlu Rijaal kon loolu doy na sëkk ab soññee ak doomi sëñ Rijaal yi sëñ Cheikh Fatim ma ko njëkk ko wutu ci pas-pas ba ngiambar nga xam mo moo dëj ëkk yëpp nag maanaam mbooleem lu di ëkk ak jafé jafé da ñew du ñu ko rek tay la aw fanam nak gatt fan lool amu fi doon jambar lool xalal ay rakam bam ne ner ci am secrétaire yal dekk organisé mo ko rakam tok nak di yoon bi jël jëlat bis bi defat ko ampleur ba ba tey Daaru dos ak keur si Moussa Mohamed ak keur gi genn lox lay doon ba ba ba fajar kon gogu pas-pas gogu ñamal ñoko def waye nak naanaam tey bi sët yi dikkee seer Ridial Seck gëm Bamba ak ànd ko suñu Cheikh Fatim ñoom ñi gis ngeen liñ ci yokk kenn du leen ko wax kon nag murit ñi ngi leen di wax li ngeen am xam leen ko xam lan mu xam lu mu doon bu ko defee loolu mooy soññee bi nga xam ne nii moo jóge seer Ridial gëm Bamba dal ci yéen li jóge ci yónneen ba mu nu yónni woon nag yónni ko suñu Cheikh ñu demoon ci kër sëñ bi banu àggee kàddu yi sëñ Ridial gëm Bamba moo ko moom bu ko seetaanee sang bi bi ñu demee ànd ak suñ seefaatam gis nan sa sang bu sell ba mu waaj ba jekk war a julli ju jumaa mu yëg ne say ndaw a ngi fi oto yëpp gaare mu daal di jàdd dikk ci ñun bi mu agsee mu toog ak xarkanam bu leer ci seeres mbooleem ñi nga xam ne demoon nan ànd ak jàmmam ju leer ba nu agsee suñ seefaatam yëkkati siyaare bi jox ko yow la njëkk laaj laaj ñu ne yow noo def ñu ne ko mbàkke ñaan yaa ngi nangu yaa ngi am jàmm bu baax yaa ngi tane mu ne gees sëñ Cheikh Fatim ne ko kañ lay ñëw nag sëñ Cheikh Fatim ko loolu nag mbàkk ci yow la ndax yaa ko fa yabaloon mu ne waaye kon nag beesal na ndigali bu ngeen demee neen ko na toog ba tubaab yi bàyyi ko waaye nee leen ko sant naa ko bu baax gërëm naa ko bu baax te fu ma tool maa ngi koy ñaar ak yéen ñi tamit waxal leen ma sëñ yàlla ne ko jëf yëpp maa ngi koy gis pas-pas yëpp maa ngi koy gis tey noonu la yaatale jataay ba comme dañoo yónni woon bin dem buñ dëkkee laaj nu leeral sang bi li nga xam ne mooy sunu yoon siyaara bi am tey daal ci gàttal mosuñu ko am kontaan na lool bëgg nañ ci taxawaayu njaboot gi lool kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne moo jóge ca sa sang ba sa Moussa Mbacke Mohamed jaar ci sa jëwriñ sëñ Cheikh Fatim ak sa ci yow secrétaire yàlla kon na sa xel dal sa sa sang fàttewu la mi ngi lay ñaanal na sam xel dal fa nga nekk maanaam say jàmbaar fàttewuñ la ñu ngi ci leen li nga leen sant. ñi fi teew ak ñi fi teewut waaye mën a nekk rek te bàyyi xel bis bi. noo ngi lay nuyu te di la ziyaara di la balu àq di la balu ak te jital ci nuyo bobu suñ cheikh nang ko tambule won ci borom Touba cheikh mohammedul muntaha di ko ñaanal mu gën fe yàgg te gëna wër ndax wax dëgg yalla njariñul julit yépp la na yoonu murit yi na ñépp mom ci xolam ak xelam ak jëfam kon nag yàlla na ko fi yàlla bàyyil mu àggale liggéeyu maam bi ni mu ci yéene lépp barke Cheikh Ahmadul Khadim ak barke bis bi naka noonu la ñuy tey ñaanal Cheikh Ahmadul Mokhtar Cheikh Mamadul Moustapha mooy mu yàgg fi te wér lool ba li mu yéene liggéeyu waajuram mu àggale ko wane na taxawaayam boobu ak yéeneem ci bis bi bi waajtaay ku seetlu télé ak rajo yi da ko ci dégg naka noonu nak ngay ñaanal it Cheikh mohammed mustafa mi nga xamne tay di serigne bàyyi di jaar mii sunu serigne nit ñi ah yàlla yàggalal lu ko fi tay bis bis sa su ñewé mom mbégte rek lay yendo mom lay fanane ngir yéena jëm ci am té non la koy doxale yépp japp na ni mom mo wara taxaw bis bép ndax défé na ni kërim ko sékkal yépp fu ci nekk am dana fa dem bo xamanteni bi dana défar bis kër ga ak bolam gan ñafay ndax jàpp na ni moo war a defar lépp kon kooku moom itam yàgg ak wér rek lañ koy ñaanal ndax xam nañ ni bu fi yàggee rek lépp li ñu bëgg ñun ci ci kër gi daañ ko am naka noonu itam suñu jawriñ sunu sëriñ cheikh rijaalullaahi di maam rijaal di cheikh amdi rijaal di mboolem eh, ahlu rijaal gépp tey seen kilifteef mi ci loxoom ah li muy sori sori it ci saayir noonu la ñu jegee nii ci baatin kon kooku itam mooy borom liggéey bi moom la liggéeyal ay ndawam rekk la ñu te lépp luñ ci def mu réussir ak ñaanam rek moo ko waral ak taxawaayam ak pas-pasam bu mu yéenee liggéeyal Cheikh Ridial kon kooku dañ koy ñaanal mu gën a yàgg gën a wér li mu yéenee liggéeyal Maam Ridial ak njabootu Maam Ridial gépp mu mën ko àggal ba ci wat fi andat ko ñun lu yàgg ay euh, ba doyal sëkk rek mom dal na dem ba doyal sëkk rek nim ko bëgge mu ne ko ni wax dëgg yàlla kooku euh, kër rijaal kër sëñ jall gep amuñu fayam ndax yéesul kenn ci ñimu wut wuutu damay wax ni yéesul kenn ci ñim mu fi wuutu ci pas-pas ci njambar ci jom ci jëf kon kooku lañ ko wara ñaanal mu yàgg fi lool lool sunu sag la sunu dimbal la sunu yërmande la yalla na fi yàgg te wër Eh, naka noonu it ñoo ngi nuyu tey siyaara jëwriñam yi dañ sa am li ngeen wax doy na sëkk mu dee su cee dolli dara xanaa kay gën a fedd bi rek waaye lu ma ta wax wax ngeen xaal jii la dabit yëg-yëg bi ngay waxee ak bu gëm-gëm bi ngay waxee mooy mooy waral toujours fu mu fu mu tàmbalee foofu lay mujj loolu moo nekk ci moom moom du lu bees ci moom waaw li na ci xolam la moo fees ba génn ci biti noo ko noonu itam sëñ si wax kon jërë gën jëf taxawaay bi mat na rafet na yàlla na lépp dajeeg mbégum sëriñ bi yàlla nañ ci dajeeg ngërëmul borom tubaa yàlla nañ ci am tawféexi borom tubaa borom tubaa bi nga xam ni tey ku am bis moo la ko may tey moo moo mooy mooy borom bis bi kon bis boobu lu ci waay bëgg na ko ci fas mooy kiy faj aajo yi mooy kiy uñi njàqar yi kon noo ngi ciy fas buñ fasalee sëriñ bi ak wér ak yàgg fasal ko mboolem ku aju ci moom ñi fi teew ak ñi fi teewul te am yéenay teew te gàllankoor yi àdduna wala wéré di tax leen teew yàlla na suñ borom faj seeni aajo wéral seeni xer seeni jëm ñi nga xamee ne daanañ teew ànd ak ñun liggéey bi te te te tey ñu jiitu junu barsax it naka noon it yàlla na suñu borom fekk leen fa ak mbégtem borom bis bi comme ni nga ko fàttali ko léegi rek te xam ne bis bi ñibbi sig boroom ci dëkkam bi mu gënoon a bëgg ci àdduna santoon ko Cheikh Mouhamadul Moustapha Attaawam bi ko wuutu ni ko bu jamono soppi ko ba làqu sunuy bët na ko fi indi muy ñibb si ndax ku ne xam na ni fii la gënoon a bëgg dëkk fii la gënoon a bëgg ci nattay soñ borom boole kooki noonam ci lañ ko génnee woon exilé ko bu ñëw dikk ñibb ba daaru salam daaru mën naan mboroom yi dërëf dërëf yi ñu ne lii koy kon ndekete bir bi so sotteegul jël ko yóbbu gànnaar ngir yeneen pexe loolu booba am na guerre froide bu ñuy def ci biir ndax defe nañ ni booba euh, nit ku ñuul dafa xaw a complexe ci nit ku weex te booba ay kilifaa nga fa yoo xamante ni mat nañ sëkk kilifa defe nañ ni bu fa nit ñuul yi gisee ñooñu dootuñ xool sëñ bi te sëñ bi moom nee na képp kuñ koy tëkkaleel danoo bokkuwut yandu bokkut yandu ci genn ko ker ker suba balaa jant bee soo da nga génn ci xel yi génn ci xol yi ku ñu koy tëkkale mbooloo mi daf dafi dem ñu jëlee ko fa indi téye ko ceyeen juróomi at doyetut ñu jëlee ko indi njaareem biñ koy indi njaareem mu wax waxab ji siiw joojee raamoo masiri ilaa jurbel la daal la sa sin la sa sin mooy at mooma lawan yenoo sirrament fi sayri maarabu bu ñu xamoon secret bi ñu ñu bi nekk ci li njaareem mi ñu ba yóbbu kon duñ ko sàkk ah, mu ne fa fukki at ak juróom lam ko suñ borom tànnaloon lépp ci àdduna fekk ko foofee ci saa ba liggéey bi mat sëkk natt yi jeex takk mu war a ñibb si nag fii ci ne ko seex mu sëñ Moussa Ka doon waxee nopp lu jël nag ci ay lii yéen yàlla gërëm na la ak limin yónneen gërëm na la ak ñeneen ak xulafaawul xarmi xarnu bi ak ak lanbiya ak ak ak saalihin jinne yi ak malaaka yi gërëm nañu ak waa xarnu bi ni ko waxee yoral sa bopp yoral sa bong bong bong ku ne xam na ne bon mooy li daan fayoo ci boo bayee ba not ba not sa gerte boo bayee ba not sa gerte ca seko ba dañ la daan jox bonk bu xaalis amee nga ñëw ñu fay la moo tax mu ne ko yoral sa bon dangaa liggéey bañ jox la bon te dem fanaan diggante Kawsara ak Jinaan nottil notti mooy nga notti la nga notoon te lekk nag te naan jaajëf defar nga xarnu sëñ Moussa xarnu boobu li tax ñu mat koo fàttaliwaat ren nag mooy dañoo nekk ci comme centenaire te xarnu mooy ab siècle di téeméeri at yu mat te ci at moomee la ko sëñ Moussa doon def ngir di eh, avocat xeet wi ngir bañ eh, li li tal seen xol ak bekkoor bi nga xamante ni mooy wuutu ci dem sëñ bi alak nu mu def xarnu bi ngir ñaanal ko kii ca la ko doon waxee naan ko aw ma maqaamam di la woo waaye murid yi ñoo ma woo ne tawatal te bu nu woo saw làmmiñay woo xarnu bi waaw ci biir xarnu bi boobu dañ ci war a jàngataat kon centenaire bii di siècle bi ba nga xam ni dafa jeex nga xam kon xarnu bi jeex na dafay mel ni beneen xarnu mooy duggaat xarnu boobee nag ba muy ñaan dafa tàmbaleen e, sëriñ bi noo ngi deeti ñaan faqir dafay nangoo dagaan nangul nu lépp lu na ñaan yàlla naatal xarnu bi waaye noo ngi dagaan ci Mustafa ma nekk marwat ak safa ak aqi mustafa mii yàlla jébbal xarnu xam ne tey xarnu boobu lañ ko seex mu Moustapha ak aqi mbooleem ay rakkam ak aqi seen bàyyi ñu am ak aqi seex yi Bàmba am sëriñ ba xam kon nañ ñaanaat ci ñooñi yàlla tàmbaliwaat xarnu bi mu doonaat beneen xarnu bu gën a naat bee mu doon ñaan waaye nag lépp noonu lay demee ndax sëriñ bi moom xarnu sallallahu alayhi wa dafa waxoon ni xayrul xuruuni xarni wa man yalihim suma man yalihim wa man yalihim nee na xarnoom moo gën ci xarnu yi topp xarnu ba ci topp topp ba xarnu ba ci topp sëriñ bi nag moom bi mu ñëwee daf ni sama borom may na ma ñeenti xarnu yoo xam ni damay dëkkaaleeg yàlla fii ci kaw suuf di jañ di ñoddi te yàlla bind na ko kataballaahu tabaraka wa taala anna kaatiba haasil hurufi yujaawirullaha tabaraka wa taala fi haas fi haasi dunia fi dafi wal jalbi arbaha miati sannatin baxda haasa al qat al muhaqiqi min al haqi al mubin wallahu ala ma naqulu wakil te xaatibatul munaajaat boobu wax nañ ni bi mu ko taalifee ba noppi bi mu tëddee ci dënnam la ko teg Cheikh Moussa fekk te ca la waxee ni ci la suñu borom bind na di ñeenti téeméeri siècle dana ko dëkkaale yàlla fii ci kaw suuf yor jañ ak ñoddi xaw ma nag bu bu jeexee lu cay topp ñun booba kenn yàlla bu ko bu jeexee la cay topp moom doy na waaye ñeenti ñeenti siècle yi moom bir ma ne sëñ bay nag ci kaw suuf di jañ di ñoddi bu njëkk dañ daan wax ne nag sëñ sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne xar bopp xar nu bu ne yàlla dana ca teg benn mu jaddit ndax xarnu day bu batee téeméeri at yi day fekk bagage yi yëpp day màggat day aaje besalaat moo tax bu jaddit du man a ñàkk ci lislaam waaye moom nag ñeenti xam ne moo xam ko fay teg ak nu ngi koy liggéeyloo waaye daal ci loxoom la loolu daal lañ mën a seere ci bis bi nii ah, <laughs> waaw dama am foofu Cheikh Ridial ci dem sëriñ bi comme doon nga wax euh, euh, dab yaag lépp dafa amaat beneen wax bu mu wax boo xam ni mag ñoom ko doon wax ñoo ma ko nettali ca Sadio wax ni sëriñ bi de bi ko Cheikh Mouhamadou Moustapha indee fii ci Touba daal ni leen bu amee ñeent fukki at boobu amagul ñeent fukki at bu ngeen seetloo da ngeen gis ni lii ñoree ci suuf di ami reen ñu di ko jëfandikoo mooy ëpp sax njarte li ñoree ci kaw ngir barkeel gi suuf si barkeel noonu la jëm ni sëriñ bi mel moo tax dañoo am lu xamul moo tax ku dëkk Touba ku ne war ngaa am comportement boo xamante ni boo génnee Touba foo jëm ñu ni kee Touba ci yiwee ci murite ci civilisation ah ci say waxin ci say doxin ci say melokaan yëpp loolu dong lañ ko mën a delloo njukkal waaye leneen mënuñu ko faye le Cheikh Mamadou Diall mais mu waxoon loolu nag tey leetar boobu ngay wax daan addi jëm ko doon sas defe naa ni mënuma wax sax ni waxin wa waaye amara cheikhul akbar muriduhu sadiq wa sahabuhu sadiq cheikh mouhamad seck al mustahir bi rijal واسمه دل على أنه جمع واحد أمره بمناسبة الإهداء إلى جنابه عدة ثمانية